gannaaw bi ma nuyoo gouverneur de la région de Dakar le gouverneur Al-Hassan Sall di nuyu mboolem préfet yi fi teew mbooleem sous-préfet di nuyu honorable député membre au conseil ak conseil économique social et environnemental di nuyu maire yi ak président de conseil départemental yi di nuyu également mboolem chef de service régionaux départementaux ak locaux di nuyu également ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi ci ministère microfinance ak économie sociale et solidaire di nuyu waa presse bi euh, maa ngi wax sama mbégte bi ma am ci teew fii ak yéen ngir ñu mën a euh, dëgmal li ñuy wax de spécial bu jëm ci euh, plateforme bi nga xam ne teg nañ ko te muy doon instrument wala outil bi nga xam ne moo war a màndargaal li ñuy wax loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire balaa may ñëw ci loi bi nag maa ngi sant bu baax gouverneur ak mboolem préfet ak sous-préfet ak yéen ñi fi teew yépp ndax laata ñuy ñëw fii tey dafa am liggéey boo xam ne dañ ko def en amont te liggéey boobu yépp moom ki service am ñoo fi taxaw ba tey ñu mën a am jotaay bi Euh, loolu benn la ci seen taxawaay mais seen beneen taxawaay mooy li ñu am comme wàll ci lii ñuy liggéey pour ñu mën ko def ndax loi bi dëgg la biñ koy bind dafa sukkandiku ci vision boo xam ne njiitu réew mi muy président Macky Sall moo ko am jëmale ko ci wàllu équité territoriale jëmale ko ci wàllu justice sociale jàpp ne képp ku nekk ci réew mi te réew mi di tabax koom loolu war na mën a ñëw aw ci ay yoon yoo xam ne dana yegg ci ñëpp loolu nag bi mu ko mbébétee daf ko tënk ci loi promulgué ko xaatim décret d'application bi kon yéene bi daanaka sori na dëggu na mu des pas-pas bi nga xam ne ci ñun la war pour ñu mën ko matale pas-pas boobu nag euh, pour mu nekk dëgg la foog nit ñi xam loi bi li ci ne Euh, lan lay indi mais li ëpp solo bu ñu xamee loi bi ba pare mooy ñu mën ko jëfandikoo jëfandikoo boobu nag ñaaree mooy xaw a sooxe moo tax tey ñu ne nañu daje su ko defee ñu bokkandoor jàng loi bi buñ ko jàngee ba pare ñu wan leen ci ministère bi ban yoon la ñu jàpp ne mooy mën a tax nit ñi jëfandikoo euh, coppite walla innovation yi nga xam ne mi ngi ci loi bi ndax loi bi am na ay avantages yu bëri bu fekkee ne acteur économique bi am na agrément bu ñuy wax ESS am na avantage yu bëri yoo xam ne loi bi daf ko ci def dinañ ko wane ci kanam mais beneen bi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy même RSE bi loi bi daf ko encatre kon loolu day baax ñun ñi ko war a liggéey ñu xam ko ñu def ci nag ay yoon yu bëri loolu yëpp ñu jàpp ne doxalin bi dafa war a méngoog jamono moo tax ñu ne kon nañu jël aussi li ñuy wax plateforme numérique ñu mën ko ci def donc loolu yëpp dinañ ci ñëw euh, si kanam pour xool ban taxawaay lañ ci war a am kon tey suñu daje bi daje bu am solo la ndax mooy tàmbalib li ñuy woowee vulgarisation ak opérationnalisation euh, loi bi à travers la plateforme numérique boo leen gisee ñu tànn ci dakaar nag tàmbalee ko dafa fekk dañu def étude de référence sur la situation de référence des acteurs de l'économie sociale et solidaire waa ANSD ñoo ko def étude bi li mu wane mooy li ëpp ci acteurs yi ñu yitteel après dinañ wan ñan ñooy acteur économie sociale et solidaire yi ñi ngi concentré wu entre Dakar ak Thiès moo tax ñu ne kon nañu tàmbalee Dakar testé fi dispositif bi door a dem ci yeneen régions yi mais terewul laata ñuy def loolu am na simulation yu ñu def ci biir région yi ba gis ne am na contrainte yoo xam ne duñ ko gis dakaar mais dinañ ko gis ci yeneen région loolu aussi plateforme bi ñu def jéem na ci indi ay euh, réponse yoo xam ne buñ leen ko présenté ba pare gouverneur ñi ngi xaar aussi ci yéen ñi nga xam ne yéenay exécuté am na lu ngeen xam lu ñu xamul ndax fa ngeen ne li ngeen di jànkonteel duñ ko jànkonteel ngeen mën aussi au besoin améliorer plateforme bi ni ñu xalaatee ne agrément bi foofu la war a jaar ndax préfet ak gouverneur daanaka ñoom ñooy def procédure bi nga xam ne yëpp dina permettre ministère bi mu mën a valider agrément bi nga xam ne dinañ ko jox acteur bi est-ce que mi ngi exister est-ce que activité bi muy wax nekk na acteur bi ci boppam bu nekkee ci benn région te activité law ci yeneen région yi naka la ñuy def yooyu yëpp jéem nañ ko jël en compte ak ba nga xam ne bu ñu leen présenter plateforme bi yooyu yëpp aussi ñu ngi ciy xaar bu baax seeni observation ak recommandation pour ñu gën a mën a améliorer plateforme bi kon gouverneur yaak sa équipe bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant aussi consultant yi nga xam ne ñoo ñu accompagner depuis presque plus d'un an ci liggéey bi mais surtout di sant aussi équipe bu ministère bi parce que ñoom ñëpp dañ ko approprié wu jàpp ko en particulier le secrétaire général Cheikh Ndiaye moom ak l'ensemble des équipes du ministère nga xam ne euh, taxaw nañu ci élaborer loi bi ci élaborer décret yi vraiment donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di wax ne nu sommes euh, à votre disposition pour lépp loo xam ne daal ci wàllu liggéey bi lu koy gën a dëgëral lu koy gën a baaxal ñu mën ci taxaw ci seen wet ba nga xam ne li ci président Macky Sall di sàkku te mooy kenn ku nekk mën a gis sa bopp ci koomu réew mi ñu mën ko matale maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf